mbiram xam-xam mu ne waneel mu xam-xam zeron gàncax la goo xam ne les années ku des ku di màgg <clears throat> fi imrim ci as cam yuj ñii di meññi fayet ñii mu witti min jadaahu <clears throat> ca koomam ma wayet te te muy sàkku mayam wala boobu min jëdaaw ci tawam ba way tëddi damuy sàkk mayam xataa yi saadifa ba mu dajeeg turbatan suuf min lu bii mooy xelam lay sa bi mil xin daa ji aw kanuudin war a suuf kekke xir badi bu ñagas xam-xam <clears throat> la niru leeg gàncax nag soxal na fu mu sax mu ne suuf si nga xam ne xam-xam bu doon gàncax suuf su muy sax mooy doomu aadama waaye balaa taw ba dafa taw muy meññ doomu aadama bi di witti ci meññet mi di sàkku ci may tool boobu dégg nga foo mu am suuf su baax de foo mu jikko suuf su baax suuf si mooy lan mooy xel mi suuf si mi ji xam-xam mi mooy xel mi suuf si du nekk lu xorom du nekk lu kekkee ñagas foofu ku fa ji doo am dara xel mi foo mu nekk xel mu ñaw mu mën a xalaat waaw mën a mën a dégg xam-xam gàncax la xel mu mi sax suuf sa muy sax mooy xel mu ñor door a meññ nag ci biir doomu aadama bi doomu bi di witti ci xam-xam yi di sàkku ci njëriñ xam-xam daal kon balaa nga ko am bay witti ci dégg-dégg lii dégg-dégg yi ngay am ci xam-xam ak masala yi ngay traité di ko leeral mu leer ba mel ni midi yooyu balaa nga ko am foo nga am xel mu ñëw te naa mu dof mënu leeral benn masala jàng du lépp dañ la koy wax kenn mënu laa wax lépp waaye dañ la jàngal benn xadis kii ko jàngal sax am na loo xam ne jubluwu ko si woon masala ñëw moo ko xadis boobu benn law masala moom sax mën naa kii ko jàngal xamagut ko parce que amagut ci àddina waaye bu ñëwee rek yow nga ko àtte sukkandiku ci xadis sàngam te masala mi kat gannaaw sëriñ bi la ñëw safar waaye sa dégg-dégg xam na ne masala yoroon xadis bi di lëm ëmb moom bii benn lañ borom xam-xam bu ñëwaatoon tamit noonu lañ koy attee kooku moom maa nekk xam-xam moom maa nekk borom xam-xam kuy mën a def istinbaat di ballalu hmm, di tënk masala yi di ko leeral li muy jàng mu di ci déggee lu mu jàngut liñ koy wax mu di ko ci attee luñ ko waxut xam nga lislaam nekkul diine joo xam ne masala mu nekk benn par benn daf koy joxoñ wax ca waaye masala mu nekk cosaanam lislaam wax na ci nga xam ne banqaas yi niroog masala boobu yow nga xam ne ñoo bokk benn sabab danga koy delloo ci cosaan li rek yow nag boo mënul dellu raddul asli ila farin doo dem eh, raddul farin ila asli doo dem fen hmm? <coughs> waaw loolu la da ngay jàng daf da nga ciy xalaat hmm, ubbeeku ci kon su ko defee xam-xam balaa moo màgg ci nit muy génne dégg-déggam foo mu am xel mu ñaw moo tax mu ne bu dee gàncax suuf sa muy sax mooy xel suuf si bu mu nekk suuf su am xorom bu mu nekk suuf su dëgër su kekk <coughs> maanaam xel mi na ñaw nga ne ko xam-xam ne niroole gàncax gàncax na foo moom taw xam-xam lan mooy taw ba wax na suuf sa wax na résultat meññal mi fi muy feeñ muy doomu aadama taw ba nag mu ne wajë dan ak taw mene taw fiiqi bu te mooy ragal yàlla ko foo am ngelaw luy uppi luy uppu waaw gàncax ga de mu ne wa min ak ci jikko ju baax xawaa loolu moo da ngelaw la saafeen bàyyi seel lam yëfsuri boo xam ne du yàq du yàq gàncax xam-xam foo mu ànd ak yàlla dëppaleeg moom la niroog taw bi taw ci gàncax xam-xam la gàncax fa muy sax mooy suuf soo suuf soosu mooy xel résultat meññe mën a fa muy feeñ mooy doomu aadama waaye nag dëppaleeg yàlla muy sens mooy taw bi nga xam ne mooy saxal gàncax gu boo amul sens doo am xam-xam bëri nañu jàng te xamul waaw jàng ak xam ñaari wutee la jàng ak xam jotewuñ dara de xam-xam tawfiq ak yàlla dëppal ak yàlla dafa mel ne rek lu yàlla ilham doomu aadama bu ko neex la mën na jàng mën naa bañ a bëri sax waaye dafa am xam-xam waaye jàng mën naa bëri sax fekk borom ba léegi xamagul dara mënul réglé dara dara dara dara jàng na lu ne waaye déggu dara kon dégg-dégg ak jàng du benn du benn yër téere yu bëri ak faxmu du benn moo tax borom xam-xam yi di wax ne xam-xam leer la gu yàlla teg ci xol su boobaa waa dafay am faxmu ci lim jàng maa ngi leen laa jàng tuuti mën a firi téere yëpp mën a taalifi téere mën a def lu bëri ci tuuti liñ jàng noonu li leen ko mayoon mooy faaxum bu yaatu gi ñu amoon mm-hmm. liñ jàng daf leen jàngal liñ jàngut mm-hmm. loolu seen xam-xam mënoon a yaatu mm-hmm. <coughs> kon sens foofu moom ci sens mooy taw bi nga xam ni mooy taw ci gàncax ak xam-xam waaye it gàncax boo ko jiyee foofu mu am ngelaw ngelaw loo xam ne daf ci upp tàngut loolu mooy jikku borom xam-xam ba mu mujj jikko yu suufe yi bu mm-hmm. mu bëgg noflaay mm-hmm. bëgg caaxaan mm-hmm. du xam-xam jamono muy jàng caaxaan dafa nekke du xam bu jàngee pare nekkee bu caaxaan leeru xam-xam dafa rocceeku ci moom ak xayba ga ak taar ba kanaa xamoo jàng ja ku bàyyi téere téere bàyyi la kaa yi man kaa nag koo mën a doon bis boo wanee gannaaw téere téré wala gannaaw masal yu bëri mënatoo ko rek parce yow nekko di tëgg ci téré mais boo bëggé am xam-xam foo ngay sax ci téré ba ni ngay génnee <coughs> di liir rek di liir rek di xol di liir di liir di liir di liir ba na àdduna ak ah, kay mo lay taxa ba waaw waaye boo tëjee téere yi loo bëri bëri xam-xam masala yi commencé di rëcc benn par benn dañ laaj masala nga ne ah bii de xamoon naa ko ba nga xam ne mu ngi ci téere sàngam waaye mënu soo ko réglé parce que dafa rëcci kon jikko mënul ñàkk ci borom xam-xam loolu mooy xel sens jikko ju baax boo amee xel am nga suuf su baax boo amee sens am nga taw bu mat boo amee jikko am nga ngelaw lu set climat bu baax pour gàncax ak xam-xam meññ ci yow nga commencé nag di witti ci meññeen mi di sàkku ay mayam ay may xam-xam <coughs> dégg nga nag mooy li nga bëgg nga am ko ni nga ko bëggee loolu yombut foofu naa ko foofu yan moo lay xam-xam di màggee waa ju mel nii ci lay xam-xam màgg ci moom xëyra an na simaaro ànd ak na meññe di nag chatta way tàqalikoo la ida axsaytaha boo ko takkee lam tondari duñ ko lim meññeti xam-xam kenn mënu koo lim waaye nag wax naa la bu doon garab nga ne dàtt ba mooy naxu luxa sarf ñooy dattu xam-xam mosoo gis garab gu taxaw te ñett yooyu taxawuñ ñett yooyu bu ko nit ki bu ko ko bu baax a baax a baax a baax nu suuxat garab gi rek maam nay liir rek meññeeti xam-xam bu ne yàlla mën na ko jox gis nga yooyu ku ko xam fànn boo ne mënul ko rek da ko yitteelut hmm. boo mënee ñett yooyu te muy dëgg hmm. fànn boo amul dëggu rek dalaa yitteelut boo yitteelee rek nga xam ko dégg waaye façon xam-xam yi bëri na yee def di datt yi façon xam-xam yi bëri na xam yàlla ci xam-xam yi la bokk moom la bëgg a jàngale sax ne mooy xam-xam bi gën a foor parce moom tasawuf moo ko tax a jug téere bi téere tasawuf la mm-hmm. waaw nekk ni si tasawuf la bëggoon dugg mu jaaraale ci xam-xam <coughs> dooru continuer ci xam yàlla balaaxa arut mantiq yooyu yëpp mustalaax yooyu yëpp ci xeeti xam-xam la bokk fiq jeex xam-xam mi bëri na calcul sax ci xam-xam yi la bokk xam xam bul xeeb nit ñi tabaxee sax xam-xam la nit ñi tabaxee xam-xam la de boo mënul tabax boo am foo dëkk ba mu fa dëkk da nga mën a jaamu yàlla nga tumuranke de <coughs> kon loolu wasiila la pour jaamu yàlla kon xam-xam boo am njëriñ la bépp xam-xam boo xam ne mën na laa jokkaleeg sa borom rek xam-xam la <coughs> waaw dawal oto sax xam-xam la dawal oto conférence yu bëri bu bu ku dawal oto bu mënul am doo fa dem barab l'islam yu bëri boo amul oto doo fa dem kon dawal oto sax xeet xam-xam la kon xam-xam yi bëri nañ boo ko naree takk doo ko liir loolu waral ku nekk tuuti la ci am tuuti waaye waajalu max buutin hmm. li gën a màgg ci lañuy ñuy ñeexee bii ci moom hmm. wa munaafasin ak la war a xëccoo hmm. zul atiye bi ka gën a teeye al abqaa ka gën a des al ajali ka gën a màgg al anwadi ka ëpp njëriñ عرفان رب العرش ويقم يلا ما يبرم عرس ثم صفاته توب اي ملوم وفي عالي غي جفم فاهتدي كن نغا غينديكو الى خفاياه جيمتي اي مبوتم مبوتي خم يال مانام كم كم خم يال يو نوب يي موي خفاياه موي نغا غور غور با ام لول لي بايلون لو حسن علوم من اربان ذا سالك waaye nag daf na awluha irfaanu rabbil malik mm. rabbil malik mm. bi ci njëkk mooy xam yàlla mm. moom it loolu la wax nee xam-xam bi gën a màgg ñu xam-xam bi gën a ñu xëccoo ko xam bi gën a teey mm-hmm. bi gën a des àddina àlaxa na waxtu bu yaa ngi soxla xam yàlla mm-hmm. waaye am na xam-xam yoo xam ne waxtu nga koy soxla waxtu doo ko soxla mm-hmm. lu jëm ci wàll sëy bu sëy amul da ko soxla soxla woo ko di ci sëy rek nga ko soxla xoolal nag façon xam-xam bi bu nekk rek am na digg buñ ko soxla ak waxtu buñ koy soxla ak jamono juñ ko soxla ba mu des xam yàlla moom saa su nekk da nga war a wéetal sa borom kon mooy xam-xam bi gën a def àllaaxira yi noonu lay continuer yow kanaa xamoo kanaa xamoo xam-xam yi ngay dund ci àddina yëpp boo dee daanaka bëreetul njëriñ waaye nag résultat bi dana topp mais maarifatu billaahi moom ngay dund ngay dee da ngay continuer moom waaye waaye julli c'est la yem c'est rien fii ci àdduna la kon ay nu ñuy jullee nu ñuy wooree yëpp booy dund la ndax boo dee da nga foofu di julli am na woor am na azaka ana leen ci jàngoon li nga jàngoon yëpp boo dee aywa lemal tiyaaba gën a dana topp mhm. mais xam yàlla moom ba sa bàmmeel da ngay dundaale moom mhm. foofu loolu rek fa maarifa rek bu raxu dara alaxira maarifa rek ndax dellu ci yàlla la mhm. lab ca pée ba jëmm ja di dund rek ba ilaa yawmi diin waaw waaye yi doon jàng fii yëpp sa façon xam-xam yooyu yëpp pour àddina la pour <coughs> sa baax nga xam fi ngay teg sa tànk waaw kon xam-xam bi gën a des mooy xam yàlla mooy xam yàlla xam xam-xam wasila la pour nga xam yàlla wa illaa amul njëriñ wasila rek la naxu buy am njëriñ pour nga mën a dégg alquran la alquran buñ la naan dégg ko pour nga xam kan mooy borom melo la ndax alxuraan melo yàlla la daf hmm. lay jàngale ay melo yàlla nga xam borom melo woowu moo ko tax hmm. balaaxa boo koy jàng hmm. pour nga xam ne alxuraan la xam sew sew yi alxuraan am na sew sew yu yoo xam ni tànk amoo balaaxa daf lay jaxase te da ngay jàng ci téere yu ndaw yi rek ci téere lu ko wax ko amul xel xaawalaay ko am xel rek nga dem fekk ci alquran mu ne laqad alimta ma haawlaa yantiquuna xam nga ne xërëm yi mënuñoo tudd ah, haawlaay googu ay xërëm la boo amul xel na ay ah, def na laxnu déedéet fekk dafa am ci balaaga lu ñuy tuddee nga wàccee ku amul xel wàcce waaye ku am xel léeg-léeg dafay am moo tax boo tànk jàngu balaaga bu baax jàngu asraaru lugatil arabiyya sew sew yi nekk ci lugatil arabiyya doo mën a yéem alquran mais boo jàng asraar yooyu da da ngay gis nekk lu ne waxee na ko te yow wax yooyu boo sukkandikoon ci téere yi nga jàng rek boo demee rek naan alquran dafa jum fi moo tax gën a fasaa ñëpp waaye alquran yi moo gën a fasaa ñëpp loolu nag li la ko mën a may <coughs> mooy nga xóotu ci sew sew yi arab ni muy waxee hmm? Hmm. ni muy waxee su defee kon xam waxinu arab xam lu mu jublu ci waxin boobu moo tax ñu jàng balaaxa wala nangam. buñ xamee waxin boobu ñu mën a dégg wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi joxuñu ñu lu mooy yàlla. fiq xam nga la mooy fiq mooy teggin yi doon yonent bi doon jaamoo yàlla. yonent tëjali gu tëjali ci ba rek. am na teggin gu mu ko jox teggin yooyu la ñuy bindal mooy fiq <coughs> loolu mooy fiq de. waaw pour jox teggin yi tëj tëjaliyaat yi teggin yam laaj mhm. kooku pour mën a jokkoo sa borom na mhm. ndax tëjali boo gis rek teggin gam laaj boo ko joxut pee bi dàq la mhm. wala man nga am ak problème ak yàlla ñu dóor la kiiraay léegi nag kiiraay googu nga bañ mu am nga jox tëjali gi teggin gim laaj ngir mën a jenoog leeri pee bi bu yegg ci yàlla la ana ban xam-xam moo tax moom la xam yàlla taxu jug amut hmm. xam-xam yëpp xam yàlla mooy résultat hmm. te àllaaxira xam yàlla gu ngay continuer di dund bu hmm. ko defee mooy xam-xam bi gën a des al ajalu mooy bi gën a màgg te mooy bi ëpp njëriñ bàyyi nee yàlla def na ñu jaamu ko waaye tegg na sariyaatu la xam ko rek la bëgg xam ko rek la bëgg ci jaami waaw boo ko xamee ah, xam li ko tax a jug lum feeñal rek yow doo réer da nga xam ne moomaa waaye loolu mu feeñal danga xam lam ca bëgg lam bëgg mu feeñ foofu nga def loolu loolu mooy jaamu yàlla de teggin yi am lu yàlla namm waaw yàlla boppam rek moo ko tax a jóg la mu bëgg a wane ci boppam nag ah yow nga ne na ko nëbb yow la yàlla di nëbb rek <coughs> keneen feeñal ko yow yow moom yàlla nëbb la benn yoon waaw boo jaamul yàlla yàlla nëbb la nëbb la ngay feeñal li mu bëgg mu feeñ far force mais yow doo ko gis moom parce que yow da nga bëgg nëbb li mu yore moom mu nëbb li nga yore kanaa moom aljaza min jinsi amal la yàlla dafa am lu mu bëgg a feeñal ci boppam ay sifaatam ak ay affaire teggin sàngam mooy feeñal melowoowu tëjee bi feeñ na melowoowu nga war a li nga war a def teggin googu nga war a def pour melowoowu ñëpp ne dang ñëpp teg seen bët nga ne yow na ko nëbb yàlla na xaaral ma nëbb la yow yaa bëgg nëbb melaw yi man ma ko keneen keneen def ko rek affaire bi feeñ te te nag force nag yàlla bëgg a feeñal mooy feeñ ci yow waaye nag doo hmm. doo ko yëg hmm. su ko defee kon xam nga ne xam-xam dëgg mooy xam yàlla leneen lépp wasila la pour yegg foofu boo toppee wasila bii nag ba bàyyi raaya yow mbaa du xalku yem xam nga hadis bi dafa am lu jàngal booy jegeñ lu yàlla sebre yàlla jegeñ lu baa wala boog yàlla jegeñ la zira xasabu nga di ko jegeñ lu toll ni zira moom mu jegeñ lu toll ni loxo bi yëpp baaxu bi yëpp ngay dox di ñëw yàlla di daw di ñëw waaye yaa ngi dox di ñëw yàlla di daw di ñëw te ba léegi mos leen a daje wala ñàkk yegg dafay tekk ñàkk dox jëm ci yàlla boo doxee jëm ci yàlla wala nga def ko ni ko alquran waxee muy daw fa firu ila laay waaw da nga yegg ci yàlla nag parce yaa ngi daw yàlla di daw yéen ñaa ñoom ngeen di daje xanaa bis du ñëw ngeen daje nag te ku dajeeg yàlla war a xam beneen yëg-yëg bu bokkut ak yëg-yëg bi nga nekkoon démb war a xam beneen gis-gis bu bokkut ak gis-gis bi nga xamoon démb safara sax boo ko jegee yëg tàngoor wa aljana sax <laughs> balaa nga koo jegee xet gaa ngi lay bondi dégg li nga ko sori nii moo tax yëgoo xet ga waaye boo xaw a jege aljana ay ati at xet gi mu ngi lay xeeñ nga ne jege nga yàlla tax moom beneen yëg-yëg te yàlla gën a neex yooyu yëpp jegewoo ko de jégoo ko de safara sax boo ko jege yëg tàngoor kon boo jegee yàlla da nga yëg leeri sa xol su ko defee kon xam-xam yëpp pour yoon la bi ngay jaar pour daw yegg ci sa borom loolu rek moo ko tax a jóg <coughs> wa ma daaruha lefam ba hadal abdu mooy bi la jaam fi atuwaar yi ci ay jamonoom min yow mi ci bisam waxadin ak suba moo mi ne ay nab tuddi ak fuñ ko commencé xam <coughs> yàlla googu nag lef bi ngi ciy jaar di ci dox mooy ci jaam bi bu la neexee nga ne yow yaay jaam bi waaye jaam bi dëgg-dëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy madaaru irfaan dox ci biir yonentu kanaa xam nga yonentu day lemmeeku rek booy dox ci biir yonent bi daal yaa ngi xam sa borom. Hmm? waaye waaye nag simple loolu ku madaar bi yow la yow yow yow jéemal a xam sa démb li nga doonoon lu ñàkk fayda yi nga doonoon doonoon dara lam yakun shay'an mazkuran sa suba meddig ngay doon sa dund bi yaa ngi am ay jafe ak lépp boo xamee ne yow doo dara rek nga xam ne yàlla dara la hmm. nit bu xamee manqué am xam mat ak bu xamee suufeem xam kaweeg yàlla bu xamee xeeboom xam foor ak yàlla man arafa nafsahu arafa rabbahu moo tax yoon wi ngay jaar pour xam yàlla mooy nga fexe xam sa bopp yow waaw xam kaa xamoo nit ko xam boppam du jëgleel boppam dara koo gis mu yaakaar ne mu naan mu naan muy muy jël yaaw mu tëkkalim naan sama nàngam rek dafa xamul boppam mbiru mbiru jàmbur la jël mbiru yàlla la jël jagleel ko boppam soo delloo lépp yàlla nag luy def dara rek nga xam sa borom waaye boo bàyyee sa bopp dara rek yaa ngi juum moo tax bàyyi ne lépp lu askane sa bopp ba nag yàlla na ko mu ne asaaye sama yet yàlla na ko ah, loolu nga ne sa yet la sànni ko xam ko sànnee muy jaan yow lépp lu askane bopp génne ko ko nga sànni ko fële <coughs> parce que moom moo dara boo ko sànnee rek da ngay gis ne li nga askanoon sa bopp mbugal la woon pour yow hmm. lépp lu askanoon sa bopp jàll na sa biir yaram bi da lay matt rek hmm. maanaam mbugal rek la lay andi hmm. doomu aadama dafa miin sama sama sama sama sama te fekk moomul dara loo moom koy xaal nga koy bind wala ngay judd andiwaale ko wala ngay dem yóbbaale ko loo moom boo jullee ba pare sax moomoo dara sa julli sa yaram bi nga jullee moomoo ko xel mi moomoo ko suuf si moomoo ko ndox mi moomoo ko ah yow loo moom sijaada bi moomoo ko loo moom ba pare nga bàkku kon doomu aadama bu xamee boppam carrément dëgg-dëgg xam du amati dara su boobaa mu xam yàlla <coughs> wala nga ne doomu aadama war naa xool fum mu commencé fu mu soso mm-hmm. xool it suba fan la jëm xooli tayam su boobaa mu xam yàlla ku nekk noonu koy xool mu ne tilk yooyu nag ma la wax almaarifu ñooy xam yàlla ya laa shaqa shiqu naafisin nekkut bollaxu aji coow naafis mu aji wax shiq shiqatu mooy kàddu gërëm buy gërëm di sab hmm. maanaam mu ne xam yàlla du ay coow rek de hmm. nekkut bolla ko aji coow hmm. yahdi dana bebbantu wala yahdi duggindi nit ñi hasimin aji qulo kon mildadi ko kutumtu moy ko tatqulo comme ni ko ñu bëri defee rek hmm. ñun ñëpp ñu teg suñ suñ bëri hmm. xam yàlla mu ne du ay coow rek waaw ane nangam lu tax nangam lu tax nangam lu tax nangam lu tax nangam lu tax nangam di sos rek yow li nga laaj li tax nangam yow yow la yéem waaye yéemu nit ñi koy déglu mm-hmm. waaye duñ la tontu dañu xam da ngaa réer ba pare xamul ne da ngaa réer mm-hmm. naa fi benn waaye bu yàggul mm-hmm. mu ne Faatiha muy umul Quraan dafa ëmb waaw ma waxi yi ñuy wax daal man dama xam waxi dafa ëmb lu mu ëmb alquran waaw que parce que muy kon dafa ëmb lu mu ëmb alquran waaw alxuraan tudd na garab ana garab ci Fatiha alxuraan tudd na nangam ana nangam ci Fatiha waxi dof yooyu muy wax ku jàng tuuti da ngay xam ne ndeysaan hmm. kii maanaam dafa feebar feebar bu métti métti métti métti métti métti métti hmm. gëlëm ñu war koo gindi moom mu ne yéen mooy gindi nit ñi hmm. xamul sax xam-xami alxuraan ñaata xam-xam su xamoon xam-xami alxuraan lan la li am alxuraan làmboo ci xeet xam-xam dana mën a delloo xam-xami alquran yëpp ci fatiha hmm. borom xam-xam moom xam nañ loolu te mën nañ ko tawul leen hmm. waaye moom tafaasir yi benn par benn ana garab ga ana nangam xam nga dof la hmm. waaw coow yooyu nag la wax ne loolu du maarifatu billaahi bal sax ñi gën a xam yàlla ñoo gën a noppi duñ junj sax am na ñoo xam ne xaqaayiq sax duñ ko junj duñ ko laal sax ah waaw dañ naan laa laa laa ab waxu bi sirri maanaam du ma lee du ma du ma feeñal mbóot ma de. Mm-hmm. ñoom loolu lañ la loolu lañ ñuy wax dañoo fonk mbóot mi ba duñ ko junj sax. Mm-hmm. boo leen gisee nag seereer rek lañ lay wax. Mm-hmm. nga yaakaar xamuñ dara fekk ñu ngi dagg ci mànn gi xam yàlla loo xam ne nii. niir yi sax mënuñ koo daw. soo ñëwee di teg la siraatul mustaqim ba sa xam yàlla tax nga jubóog sa borom. waaye coow. di xuloo rek maanaam ñoo xam ne bu ñu amoon kuñ xuloo sax danañ ko wut ko def benn waaye toog rek envoyé ma message man waxtaan ak man di nga xuloo di nga xuloo la bëgg boo waxi dof sax kii dafay débat moom dégg si débat la nekk boo waxi dof man daa am par de gis monté na ko commencé ko tasaare ci groupe bi te wax ji ma xamul ci benn njëriñ toroxtaane la ci jëlee ma ne xoolati yëfu dof yi rek hmm. ku ko dégg da nga yaakaar ne man damaa jëloon intention dem di def débat ak waa jooju te fekk def mu débat ak moom moo ma jël sama numéro whatsapp di waxtaan ak man comme kuy waxtaan ak taalibe ak mbokk taalibe ah <coughs> ma di ko doon laayee biir jubluwuma sax eh, waxtaan wala débat wala nangam ndek moom moom moom mu doon wut débat moom ba pare dem monté ko tasaare ko waaw xuloo rek lañ fi nekk moo tax man dem naa ba gis ne li gën ci nit ñi. mooy ñooñu bu leen kenn tontu parce que dof nañ ba pare rek xam nga wax ak borom xam-xam sax moo tene tuuti waaye wax ak ku xamul dara ba pare nag li bëgg mooy coore jaru ko da nga koy dëddu parce que loolu la mérite hmm? te fu nekk nii mën ngaa gis koo xam ne nii hmm? xale bële ngay waxal ci daara ji xale bële xale baa ko raw xale bi ngay waxal moom moom moo ko raw mu taxale moom mu xutbu zaman mu ngi am ci jamono ji léegi maam da nga tobakam da nga yéemu da nga yéemu daal mm-hmm. daara daara daara daara daara xamul te buñ ne mooy xutbu zaman booy indi li seen sëriñ wax ne xutbu zaman noonu la war a mel mm-hmm. ñu dàq loolu mm-hmm. tey ñu wuteeg bàyyi suba ñu ànd ak moom bu bàyyi waxee loolu arrangé wul ñu ne loolu tegu fenn bu leen arrangé ñu dem jël bàyyi nee na nangam Hmm. coow yooyu lala wax ne la du maarifa coow yooyu nag yàgg na fi de xam nga nit du dund hmm. ne la tànnal ku xam sharia ak xaqiqa génn àddina di la faral koo xam ne xamul dara ci sharia kanaa xam borom xam-xam responsabilité bi seen kaw la nekk hmm. bu leen neexoon benn coow du am dañoo ragal ku leen yedd te dëgg ku ko bëgg taxawal foofu yedd seen problème bi mooy hmm, borom xam-xam hmm. bu leen neexoon duñ laam-laame diw diw diw mooy kaamlaas wala du kaamlaas yi kenn du ko fi laam-laame waaw hmm. ah, nañ la géwal rek affaire bi loolu la de nañ la géwal rek dem géwal lañ bàyyi kuñ mënul géwal amut bàyyi ma demee Nigeria lan la borom xam-xam yi def dina ñëw rek naan ah, eh, eh, eh, est ce que Kamil Ansari du Kamil Ansari ñi ñu werante coow dañ koo géwal mais ñoom lu leen topp yoon woowu bu yàggu rek maa ngi dégg kenn ci ndawi pay bi yàlla yàlla ko muy waxtaan mu ne aadama malaaka yi bañ taxawee commencé kii Adama yàlla dafa taajal malaaka yi question mm-hmm. ñu gàkk mu taajal ko Adama Adama gàggantu ko ñu door a xam ne mooy xalif yàlla mm-hmm. ci xam-xam lañ ko fale mhm. mais moom toogutul xam rek ne man maa xelif yàlla wala nit moom mooy xelif yàlla ñii di werante moom laam du moom nangam laam du nangam dañ la géwal mhm. kuñ géwal mu leer <coughs> kanaa moom mbirul islam mhm. dara tuutuut lépp lu nit woote ci penc mi lañu war a taxaw kàngaami borom xam-xam yëpp ñëw duñ la tegal nag loo xam ni jotewut ak dara ma xaam boobu waaye lépp loo xam ni boroom xam-xam bind nañ ko rawatina ñi nga gëm mm-hmm. ne maqaama sàngam mandarga yi la war a yore mm-hmm. dañ dañ la si natt ba xam mm-hmm. loolu dara nekku ci de natt dara nekku ci de affaire bi leeral lañ ci jublu bu leeree ñu gëm bu leerul nag ñu duma la fële suñu yoon nekkatul ci yow waaw gannaaw bu doon def loolu gannaaw moom woote bi du bëri waaye nag doomu aadama bëgguñ gàcce bi coolee fi nekk rek nga réeral nit ñi nag nga am gàcce nit ñu noppalu moo ko gën nga réeral nit ñi nga am gàcce nit ñi noppalu looloo ko gën mm-hmm. problème bi mooy borom xam-xam yi ñoo ragal ragalu li mooy ku la yedd ba bàyyi nit ñi di fooye dina yàlla ji lu leen neex ku xamul dara mm-hmm. am ñoo xam ne moom ñoom kenn wu leen tegal question sax moom day war a jàpp rek ñàdd doo alhamdulilah waaye daal ñooñu daal kenn la leen war a def. Mm-hmm. am ñoo xam ne moom dañoo dara dara dara dara dara nekkul ci ñoom. Mm. ñu ne ñoom ñooy Cameras <coughs> maay borom jamono ji. Mm, borom jamono yomb na de. moo tax ñu wax ne Sénégal bu demee ba ñenn ñi taxaw ne ñoom ñooy moom jamono. Mm. Sénégal googu yàqu nag <coughs> bu dee taaliba bàyyi nga daaw. bàyyi ci bitti. ma demee jiwaay rasaayal da fekk. mu di aaye. di wax ne am na ñu ñu doon aaye ñu bañ mu rekki jotaay boo dem seen waxtaan lépp maarifa la bu ko gi defee nii bu ko nangam gi defee nii ba xaqaayiq yi te li ñuy wax dara du ci dëgg bàyyil xamal nañu xal ko nañ bu yàgg maarifa du la génn ci bitti bi kulli saraaxa ñu jëlee doxal seeru ci mbedd mi ah? danga gis koo xam ni sax moom dafay tax dem ci ab groupe ne waaw waaw léegi ba am wàccee seeru bi seeru bi nangam di seeru ci groupe léeg-léeg nga gis ko de ay reetaan jàpp la nga xam ne kii dox na dox na bu yàgg mm-hmm. waaye nag yaa ngi tus yaa ngi seeru si groupe yi yow loolu yëgoo ko ñu ngi koy def mm-hmm. ah léegi ñuy débat sax ne si la ñuy débat waaw ñoo leen ñu bi ñoo leen ñoo si seeru bi mm-hmm. ah, man waaju dof boobu yónnee woon ma message hmm? bu dof si pour dama ko xeeb parce que waaye dof la ci diina ji yónnee message loolu la woon ne ma nañu waxtaan ci séeru ma ne ko démb du ma waxtaan ci séeru bi séeru ni ñu siy waxtaanee <laughs> te nag séeru gi mu bëgg ñu waxtaan mooy seeru gi nekk ci xelam mi moom li nga xam ne moom moo ko créé hmm. du tus moo ko créé boppam noonu amul benn sukkandikuwaay loolu de la bëgg ñu waxtaan xam nga toog rek xalaat dara sa bopp bi calcul ko noonu rek mu baax. Hmm. nga na ko nit ñi xam nit ñi duñ ko xam di xam-xam bi gën a bon ci xam-xam yi mooy bi ci gën a tumuranke hmm. ci fànn bu ne maarifatu lu ñooñ lu aarifoon yi xamut dafa wérul rek sharia lu fuqahaa yi xamut dafa wérul rek hadis hadis bu ulamaa hadis yi xamut dafa wérul rek wilaaya gu wëlli yàlla yi xamut dafa wérul rek moo tax del daw yi gën a tumuranke tey wut lu leer nañ xataa boo amee ndigal. maanaam fas bi du ñu a wax ci mbedd mi bàyyi na ne danaay doxal ni sayru bàyyi ku ëpp ndigal ci kanam koo xam ne yëggut ci maqaamam ma génn ko ngir ban waa jële dégg li may wax ak kii loolu lim lay wane mooy foo mën a toll ci maqaama amoo droit sayru goo xam ne nga ñëw sayru di ko wax ci mbedd mi nee na wuññi mbootu yàlla yi ci kanam maxjuub bi nii moo gën a tat ci yàlla def lu xaram mm-hmm. <coughs> malheureusement léegi nag chaqaashiqu naafisin rek moo fi def yah yahdi wala yahdi xasi min mil dëdi kuñ xuloo rek lañ bëgg kuñ xuloo léeg-léeg nga gis ne dëddu leen moo waat léeg-léeg nga gis ne fuddu seen digg moo waat waaye ñu am gàcce ni ñu noppul moo gën dafa am benn laay joo xam ne danaa la ko wax bàyyee ko wax muy la am solo yellanti koon borom xam-xam yi di seetlu laaya jooju te waxte tax yedd yi leen yedd ak fi ñu leen dëkkee te dëkkuñ fi loolu du dara loolu yàgg nañ ko def borom xam-xam nit yàlla waxuma la sax naan nii la nii la dañ ko daan jël di ko dóor ci mbedd mi du téye moom bu paree li naan wax rek lay wax mm-hmm. nit ñi jokk la wala ñu bàyyi la wala ñu xas la wala ñu tàgg la yëppee mm-hmm. bàyyi def ne na ku benn bakkan ñu mel ne rey nga ñëpp bàyyi ne lu ngay déggee ci laaya jooju mooy ni ngay bu nit jugoon pour rey ni ñëpp ni ñëpp di jugee pour défendre seen bopp bu ñu naree rey benn bakkan nañ ñëpp jugee noonu pour défendre bakkan boobu <coughs> nit ñëpp bu ñu naroon a ngir ñàkk dund ni ñuy jugee pour am luñ dundee bu benn bakkan naroon a na ñëpp jugee noonu pour bakkan boobu bañ a dee kenn ku nekk bakkan bi da koy xoolee sa bopp ba mu waxee ba pare def na réeral nit moo gën a garaaw rey ko boo ko reyee fu mu dem aljana dafa shahid rek waaye boo ko réeralee fu mu jëm safara boo ko réeralee rey nga ruuxam rey ruuxoo gën a garaaw kon bu benn nit bëggee réeral benn nit borom xam-xam yëpp am na responsabilité jub pour défendre nit kooku comme nit kooku bu dee bu bëggoon réeral seen njaboot nit ñuy bañee loolu la mais ñoom dañ naan sama yoon nekkul ci te bàyyi waxul loolu de waaye am ngeen responsabilité gis nga gis nga affaire bi bu fekkee da ngaa bëgg lu yomb ngir yàlla bul jàng demal nga toog fële sa ruq boo boo jeg yàlla nga ne yàlla man xaw ma woon waaye mënoo jàng ba pare nga gis ak réer naanaa sama yoon nekkut te bàyyi na la benn nit moo gën a garaaw rey ko te buñ naree rey benn nit ñëpp war a jug pour défendre nit kooku kon buñ naree réeral benn nit ñëpp war jug wax mais kenn du wax sama yoon nekkul sama yoon nekkul si wax ji sax dafa yomb waa ji nga woo rek teg ko ci place xanaa mu gars yi ñemewuñ ak ñoo tàppet ñu nekk ci caaxaan. Mm. man man gisuma si ku si ñeme gisuma si ku si am fit. Mm. tàppet dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lañ def waaye dañoo xam ne nit ñi dañuy noppi wala ñu am fit. Mm. mais bu fekkee seen caaxaan googu li mu leen jaral pour mu dëggu nit ñi dëgg gi jaral na leen ko pour dindi fi caaxaan googu léegi te ñu lemaat seeni i kàkk dellu gannaaw. léegi te ñu demaat seen kàkk dellu ganaaw kon doomu aadama yi waruñu nangu kenn réer mm-hmm. dañ ko def rek ànd ak xol bu yaatu yéene nit ñi jàmm di la ñoom xamuñ li ñu leen yéene yonentu daf daan woo gars yi kaa leen dugg aljana ñi di ko saaga mm-hmm. di xeex ak moom te fekk moom aljana rek la leen woo nañ aw ci yoon woowu alors maa war a sutul an bia kaa nañ wax nit ñi kaa leen dugg aljana bàyyi leen réer gi mm-hmm. lii caaxaan la lii réer la lii mooy njub lii mooy bu ñu lay saaga bu ñuy xeex yow bu ñu lay noonoo bu fekkee yow def nga sa sa sa sa warugar. Mm-hmm. kon borom xam-xam warul nangu ku mm-hmm. mu di ko seetal. Mm-hmm. <coughs> kon maarifa ngoogu ñu dund ci xol la. waaye du cool aji bébbantu rek di xuloo di def kenn xamul. bu daa tëjee lam nem bi tana sukki si jaamu yàlla hmm. wa tuqaa ak ragal hmm. way naa batin hmm. lil maaliki jëm ci aji moom lépp almutawaxidi ki aji wéet su boobaa azrat dana bi taajin ci mbaxanaam buur fi jabini mu mallakin ci jëhu kuñ buurloo min asjadin jógee ci wurusu asjad <coughs> fii lu'luyin yu nekk ci biir wurusu lu'lu wa zabarjadin jawharu zabarjad yëpp xeeti wurus mu ne xam-xam bii nag muy sariyaatu ak maarifa hmm. boo ko boo booleeg ragal yàlla hmm. ak jaamu sa borom hmm. ak dellu ci yàlla mi wéet da am taar boo xam ne nii yaay gën a rafet buur buñ jël mbaxanaam buur defaree ko wurus ba mu baax rafet ñu këppal ko ko buur bu rafet boobu taaru boobu buñ ko këppalee mbaxanaam buur boobu mu génn ci nit ñi ni muy taaroo yaa koy gën a rafet ba xam nga ne aarif bi rek wala rek nga mën a gis nit mën koo bëgg bu mën a joxe boppam ndax moom <coughs> ñaata nit nga fi gis xam-xam bi ak ragal yàlla lay ànd rek nit mën a taxaw ne diw moom a gënal sax sama bopp mm-hmm. te mën naa joxe sama bopp ngir moom mm-hmm. xam nga taar bi mu gis ci moom beneen taar la de mm-hmm. wazarat dana xeeblu alal xolali ca takkaaya an nafaisi yëre way seer alal xolali ca yëre ya annafaay si dafay seer wal xulaa ak takkaaye fawqa al ataabili yi nekk si kaw jigéen ñu njool doqe ya al azala yi da way xéeg annu hadi yi da way rëy ween yi da way yëkkatiku ween mu ne boo amee xam-xam ñaari xam-xam yooyu boole ko ragal yàlla soo génne ne tëll jigéen ji sol yére yi gën a rafet ci yére yi takkaay bi gën a rafet ci takkaay yi mu sol ko gudd lool ataa bil mooy jigéen njool yi nekk janq ween ya jub yaay dàq jigéen jooju boo génnee jigéen jigéen ni kenn dootu xool ci jigéen jooju ne daf koy xeb jigéen ju dàq jigéen ji mu melal nii nit jël na ko may ko nit ndax xam yàlla mag ragal yàlla daf ko gënal jigéen jigéen ju mel nii sax yàgg naa may boppam ku mel noonu waxuma nag dem rek jox nit sa bopp noonu de waaye ñëw ne ngee jël diw diw takk ko mu gënal ko boppam ak lépp jigéen ju mel nii sax moom danay toog moom diw moom gënal ko boppam mu mën a rey boppam ndax diw dund xam yàlla rek a mel noonu taar boobu xam taaru xam yàlla rek la nga ne ko looloo di lan mu ne xunanun yoon la woo xam ne te san na ma haa yéegoon na ko al junaydi imaamu junaydi wa xisbuhu ak kuréelam ko ndeysaan ay waaye gars yi waroon nañoo rus yoon woowu ba duñ ko jéem a gàccal waaye seen bopp rek nazalu wàcc nañ bihaa ci moom sharafan tund fu way xal kawe biddiwu farqat <coughs> mu ne xam yàlla googu ma lay wax du caaxaan de nga ne lu mu doon mu ne dafa kawe ba mel ni doj ba mel ni njubbu doj ña yéegoon kawe googu ña yéegoon mooy imaamu Junayd de kuréelam Junayd di mooy cheikhu taayifa bi parce que ci moom la xam yàlla tasaarooye ak ak tasuuf waaye di ci moom la commencé non yonentu la jógee mm-hmm. barab bi gën a kawe ci barab yi xam yàlla yi wàccoon nañ fa mhm. waaw kawe ba gën a kawe biddiwu farqat mhm. tilkal makaarimu loolay teraanga ya mhm. wal maxaamidu mooy sant yàlla ya mooy jikko yi rafet ya wal ulaata mooy yu kawe yi laa xaarisun nekkut soow forox laa xaarisun nekkul soow mu forox moo xam ne tasqiihi da nga ko naan xam xambin ci kaas adin bu oyof nga xam yàlla yooyu teraanga la de yàlla ko ñëpp xam ne teraanga la ay jikko yu rafet la de loolu rek kay kawe it soow mu forox mooy naan muy jàllal bu ku nekk ay saw xam du ñàkk fayda daal xam nga soow boo ko naanee jàllal bu ku nekk ay saw rek ay kii mu ne dafa xam yàlla yi nekkul loolu de nekkul ay wax yoo xam ne da nga koy wax nii rek waaye amul benn taasir ci yow ku xam yàlla mu def meññet ci yow meññet mi mooy lan mooy da ngay bëgg mbindeef yëpp kaa yi nan man kaana waaye xam yàlla yaa gën a soxal ñëpp boo sañoon ñëpp dugg safara hmm. ah gis koo xam ni daal la aarif la waaye la ko dikkee hmm. koo tudd mu ne ay ko baaxul xamul dara hmm. xamul yàlla dafa rekkeeku nga ne ko lu tax noonu yàlla mooy parce que topp topp sama sëriñ ah na moom la waa ji waxoon tilkal laa qambaan min labanin shiba bi ma in fa aada baadu abwaala mu ne teraanga yooyu nekkul ñaari ñaari ñaari ñaari pot soo xam ne nii dañ leen a ndox naan ko mu mujj nekk ay saw du dara <coughs> xam yàlla du ay coow yu ànd ak waaye meññet la meññet bi mooy xusnu xuluqin maa kulli maxluqin nga rafet jikko ànd ak mboolem mi yi mhm. te nga nan na nga nangu natt bi yàlla feeñal sa jamono Muawiyatu mhm. ba mu ci jamonoom ba mu gisee jigéen ñi nit ñi di yore ay eh, karaw pour jokk seen karaw yi daf ne waa yéen waa Medina ana seen borom xam-xam mhm. li yonent bi sallallahu alayhi ko aaye woon wane na moo alagoon banu israil ana borom xam-xam yi loo ci déggee mooy musiba bu ñëwee borom xam-xam yi ñoo war a wax kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluhu lu ñaaw li ñi def ñoom ñëpp ñu noppi ci yàlla dana leen ko laaj de tere lu bon dafa war de yonent ne na ngeen wallaahi da ngeen tere lu bon di digal lu baax wala yàlla wàccee seen mbugal moo xam ne dana matale ngeen ñaan ko du leen nangul xoolal rek jamono yi musiba yi si lu bon li ñëpp ci nopp noppi mm-hmm. na ñi ci man dara kanaa mm-hmm. <coughs> moom bu njëkk ne mag ñi jaase lañ jël jëlee jaase mm-hmm. xam nga jaase ah. xam nga nit ñi yaakaar affaire bi dëgëral dëgëral gi bokkul ci affaire bi lu ne la laaj gis nga lislaam lu ne la laaj comme ku bëgg a ñëw sa kër rek yàq ko waaw bu dee wax mënu ci dara doole ngay utiliser comme moom dellool waa ji xeer mu la sànni rek parfois loolu sëdd delloo ko xeer mu la sànni rek dafa am ñoo xam ne nii xam nañ dëgg ji mais dañ cee teg seen tànk ñooñu mutakabbir lañ wax leen dëgg du leen jariñ dara duma leen rek ñu dellu gannaaw léegi mag ñi bu njëkk jaase lañ yore di xeex ak ahlul bidaa yi saay saay yu bon yi jaase waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne xawaari ji ku daje ñoom nag leen du rey rey métti ay julli lañu woote waaye ay saay saay lañ lu si jaasi di jar parce que xawaari ji mën a wax ak ñoom bañ jub ndax dañoo dëng rek bëgg dëng ñoo ñoom ñoo tànn dëng muy yoon waaw kon caaxaankat yii ñi am doole war nañoo wax ak ñoom ndax loolu laaj kat Omar ibn Xataab ci jamonoom nit dana ñëw commencé sos ay biddaa ay wax yu tekk bu dara rek Omar téye ko tëj ko wax ñëpp na ko ñëpp gàddaay bu kenn wax ak moom mag ni lañ daan def daaw yem ci wax rek te bu ñu xamee ni kii nitu bànneexu bakkan la mm-hmm. dañ koy duma yar ko mu delluwaat gannaaw mm-hmm. waaye léegi <coughs> jamono yàqu na mm-hmm. ba yëpp ku nekk yaa ngi sóoraale sa bopp daal sóoraale sa bopp baax na ga waaye defar lu baax baax na de doom ju baax du bàyyi toolu baax muy sëq muy sëq ki ñax bayit ko te doom ju ne koo gis taalibe bu ne sa sëriñ sa baay la hmm. tilka riyaadatu boobu boobu la tàggatu hmm. la riyaadati ruhbaani nekku tàggatoog way tàggatoog labbe ya hmm. raadatu jamaati bayna tanasurin ci diggante nasaraan nasaraan la wa tahawudin ak yahudi yahudi tàggatu ji doon sufiyanki doon def <coughs> yorontoo ko njëkkee kat dama ne lislaam dégg ko dafa am solo loo gis rek am na aslu bu mu sukkandiku hmm. kon du bidaa bidaa sax mën ngaa wax ne bidaa bu baax amut su fekkee biddaa mooy lu amul aslu hmm. bidaa bu baax amut lépp loo xam ne am na aslu kay ci alquran ak sunna loolu du bidaa sunna la hmm. <coughs> yi nekkee yëpp sunna la nit ñi ñoo xamul lu sunna rek ñoo toog baskaanu ñu jël benn affaire rek firil ko seen bopp rek saxal ko mel ni mooy lislaam fekk du lislaam ñoom ñoo ko firlee seen bopp noonu rek ma ne lislaam <coughs> mazahib bi amul woon waaye am na aslu yonent bi sallallahu alayhi wax na sahaaba yi bu kenn julli tàkkusaan lu may ci ba banu Qurayza ñii julli ci yoon wi ñii ba ñu julli tàkkusaan timis jot na borom rek xu maxtum su def na gaye ngi xaw a jot ba ñu julli tàkkusaan faat waxtu gis num rëy waaye ñàkk topp ndigal yonent bi gis num rëy kenn si ñoom ñaar xasul moromam yonentu xasul kenn ñaari ixtilaaf yu mënul ànd la te ñaari yëpp dëgg la kon ñaari dëgg mën naa nekk loolu andi mazahib bi waaye nag bokkut jamono jële dafa bëri woon borom xam-xam moo tax jarut ñu leen di leeralal ixtilaafaat yi nangam nangam yéen toog fii ñoom xam nañ li xew ak yi demee noonu mais ci jamono mazaay bi dafa jar ñu topp masala par benn mu xaw a wuuteeg lële <coughs> tuddee ko bu diw te bee tuddee wuñ ko benn mazhab ah yaatal ko di jàngal nit ñi parce que réer dafa xam te bu njëkk amul woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy jëmmi leer daan tàggatu pour gën a jege alamul malaaka yi di def intikaaf fukki fan yi mujj si weer koy yu ne dana ko def ma ne ci bidaayatu am room daan beru dem ca xaaru eh, nu mu sawru di jaamu eh, di jaamu wala xaaru xiraa di jaamu boromam <coughs> ca xaaru xiraa di jaamu boromam hmm. ci commencement mbiram loolu mooy riyaada loolu mooy loolu xalwa xalwa yu mag ñi nekk waaw ci jamono bi bakkan yi nag suufiyanke yi ñoom tàggatu googu yonantu doon def ñu gis ne li yonantu daan na ko def ah mag ñi tamit daan nañ ko def ñu jël ko nag tàggat ci borom bakkan yu sëq yi teg leen jaamu yàlla yu gën a diis ndax seen ruuxu gi mën a set seen bakkan bi mën a dee ñu xaaye leen bànneex yeeg yëpp yi doxoon seen diggante ak seen borom loolu la rek waaye affaire yi benn la waaye borom diggal li ba mu ñëwee moom daf ne léegi jërëtu ngeen dugg ci ruq yi génn leen tudd yàlla yi nga xam ni moom lañ jëlee si yonent moom laa leen jox barke bi wàcc si yéen ngeen yegg ci yàlla bilaa xalwatin rabba wa rabbaw bi xalwatin fa shattaana ma bayna yaziidayni man hala mu ne ci xalwa ci la yar yi nag ci xalwa lañ yar gaa yi ñaari yazid tudd waaye bokkuñ naan waaye de <coughs> yëpp benn la tarbiya gi nga gis ni mooy la intikaaf rek hmm. jege sa borom ba xam ko سفيان كيد وخل يرنت وخت صلى الله عليه وسلم جر من أني حديث بري ولا آية القرآن بري بين حديثك بنا بيرنت وخ لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده يرنت فلا شيء در أمر بعده جناه الله ليه لسفيان كيد مالك أدنى بقتك bu fekkee nag fraché bandu gu yonent bi da nga koo taawil ñoom ñaar ñoo bokk luñ si jublu ñoom ñoom ñaar kay gëyonanti bi lañ wax waaye waxuñ sa gos gi yow <laughs> gëyonanti gi waaye waxuñ sa gos gi <laughs> léegi nag boo mënul dégg gëyonanti bi mënul dégg ga suufiyanke yi ndax benn naan waayal yaa ngi muy déggam demal ci <coughs> sahihul muslim nga xool ni ko imam Nawawi firee a shay'a ba'dahu daf ne ay la shay'a siwaahu imam Nawawi moom dafa gaa yi waxee la ko la cheh dara amul si waaxu loolu yàlla neen loolu lay firi ah léegi nga bëgg see yéefarloo nit kon kay yéefarloo yonent bi sallallahu alayhi yow nga seet diine ju bees ju andi yonent yaa yéefar su fekkee waxuñ la ne nag wii mooy yàlla de subhanallah ñoom paas nañ foofu waxuñ la xar bi mooy yàlla de ñoom yàlla lañu wax ne mooy yàlla waaye dañ dara amul lu mooy yàlla seen dara amul lu mooy yàlla gën a boo ko déggut jaaral fañ jaar ba mën koo dégg seen gos ak gu yonent bi benn la ñoom waxuñ sa gos gi yow gu yonent gi lañ wax loolu mooy maarifa <coughs> kon tàggatu yàgg na fi tàggatu gii nag bokkut ak tàggatu nasaraan gi yahud yi bul gis na yahud dana ñu beru nasaraan ñu beru nga xeeb beru déedéet beru beru la de waaye ñi beru duñ benn nañuy beroo it du benn beroog yonent bi bokk naa ak beroog yahud yi kon béréb suufiyanke yi bokkut ak béréb làbbee nasaraan yi yahud bokkut ak ñi nga xam ne dañoo dugg na ñàkk dépasse rek moo tax ñu dugg si ruq bi di wér wér de yaa nangam pour am xaalis mm-hmm. man ñoo créé sax seen turu bopp loolu bokkut de sëriñu tereyaax yi nga xam ne dañoo dugg si ruq bi naan dañoo dugg xalwa xaalis rek leen fa tax a dugg bokkut ak béréb suufiyanke ñoom yàlla rek la ñu wut mm-hmm. mu ne ay waxandu ndax danañ compter nasran tan mm-hmm. kullama mustansirin lépp luy tantanlu wayu addu ndax danañ konte lay san gaynde kullama mustasidi lépp luy gaynde gaynde lu déedéet moo tax du ku yaa raw gaañ rek ñu la yaa raw gaañ da wane lu tax nga raw gaañ dégg kuy tantanlu rek taxul nga nekk tande gaynde gaynde lu taxul nga nekk gaynde kon nasaraan yi jéem a jégal jógal gi ñuy jége yàlla bokkut ak bu sufiyaan ñu jégal yàlla waaye duñ gaa yooyu ku jug rek ne mel nga ni ñoom sufiyaan du ko jur na mel nga ne ñoom de ñoom rek ñoo mel niñ mel ak ki yàlla melloo noonu boo bëggee mel niñ mel da jaar seen yoon boo bëggee mel ni waaji da jaar yoon waaj nga pare wane li waaji wane su ko defee ñëpp dinañ d'accord ne mel nga li waaji xam nga tasawuf daf di affaire bu set bu sell ab caaxaankat mënu cee nekk njiit wax jee bëri rek ab caaxaankat mënu fee nekk njiit boo bëggee nekk njiit dangay ngay wan nit ñi lu tax nga nekk fi njiit wan nit ñi nag di dem defi bakkaar di génne ay ay ay ay euh, maarifa ci bitti di def bakkaar guddeeg bëccëg xamoo dara sa jikko gën a sell boo waxee ñëpp xeeb la nga ne loolu moom mooy moom mooy moom raw nit ñi loolu lan la loolu du dellu gannaaw du raw kon du ko tantanlu di tan du ko gaynde gaynde lu di gaynde déedéet muy waaye xat dal la réer na anu wëli si yoon woowu kullu jaafin képp ki aji beccingal kaasihin ki aji nëbbu nooneel aw xaalitin wala ki aji jaxase mutaxarrifin ki aji jeng mutashadidin ki aji jafeel xanaa ñoo ñëwee waxa <coughs> waamin ak ku gumba jahulin ak ku ku bëri lu muy laysa nekkul mubsir xujjatin di gis lay yow man bis wala bi muqallidi nekkul di aji roy alal huda ñu njub xam nga dégg mu ne xam yàlla googu nag nga xam ne noon la du ko xam <coughs> mooy li ma la waxoon kii gis na ne nit ñi jàng nañ moom jàng na nit ñaa ngi wax mu ngi wax yàlla may wël yow mu xëy xëy xam xam-xam bu mu jógee ci jëlee ci yàlla direct di ko xamal nit ñu waa xam ne lii mënu ko weddi fenn waaye xeggu fa mu commencé beccingal sëriñ bi kooku mënu xamee yàlla kuy noonoo wël yàlla yi nooy xamee yàlla sa buntu ci yàlla nga noonoo ko nooy xamee yàlla kanaa moo wilaayatu dafa am lu ci yàlla junju ñaareel maarifatu ak xam-xam yi yéeme yi fa lay feeñee waaye ñaareel xam-xam yi fay feeñee dafay gërëm loo nit ñi lu mooy borom xel yi ñoom duñ gërëm. wilaayatu noonu ko yàlla toggee léegi nag yàlla jàngal na ko ci alxuraan yow boo yow boo gindeekoo yow la boo gindeekoo yow la ba mu feeñal wilaayatu xam nga ku mu ko feeñalam ci xadar te yonantoon ko xadar di waliyu <coughs> xam nga Moussa ko laaj. laaju ko elmu de rusdu la ko laaj rusdu ci loxo wala yàlla yi nekk muy maarifatu billaahi xoolal bu koy bu koy xadir di xamal rusdu lu mu ko xamal lu yéeme. hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta waaye rusdan liñ la xamal bëri na de mais rusdu gi daa soxla. qaala innaka lan tastati'a ma'iya sabra mu ne ko waaye waaye ngeen doo noppali mu maa muñal. parce que li may wax dafa li ma lay wan daf lay yéem. moo tax ñaareel wala yàlla yi day feeñ seen loxo. ahlu zahiri duñ ko mën a muñ dem muy rey nit ak dinaa nga mag dinaa nga mag yow mi gisee benn bët da nga koy inkaar mais kii gis ñaari bët xam ni waa ji def du ko inkaar <coughs> rey nit waaye ci ndigalu yàlla ñoom duñ def nag duuna isnin te bàyyi na wax ne sama wax ji waxuma ko duuna isnin way nii la aktumu sirra la yubaaxu li amma bu dul loolu c'est que dañ ko nëbbuloo da koy nëbbuloo mu rey nit ci ndigal yàlla yow mi ko gis da naa dafa rey nit kii gisee ñaari bët ne dafa xettali nit mu toj gaal yow mu yow mu gis yow mu patt da nga naan kii dafa tooñ waaye yow mu gindeeku gis ñaari bët da naan dafa dimbali ay miskin xoolal ñaari at yi ni ñu wutee te benn jëf waaye sa gis-gis ak ci xam ni mbir mi demee dëgg-dëgg moo nekkul benn maani maarifatu billaahi noonu la mel da nga koy gis nga taf sa gémmiñ nga xam ko ne ci man nekk lii lii laa réeré woon lii laa doon inkaar mooy li waa ji rek benn waa joo xam ne naax nañ ko ci bàyyi wax ko ci bàyyi bàyyi lu bon a bon a bon bon benn bis xaritam na ko nañ dem teewee euh, tafsir tafsiru bàyyi <coughs> mu bañ bañ waa ji forcé ko sa baraam jóobu koy nettale bañ demee mu toog bàyyi di tafsir mu di ko xool di ko xool di ko xool parce que moo wax waa ne ko waa xanaa sëriñ bi daa tukki daa tukki bàyyi fi kéemtaane jamono ji <laughs> waaye ne ko kii mooy kii mooy sëriñ bi di kim tànn jamono ji mooy sëriñ bi mooy waaye nangam ndaw nangam ndaw mu diw waaye <laughs> ah waaw mooy mooy saaga mu saaga ko doon wax lu ñaaw ci bàyyi mu ne ma kii lañ ma wax naan ma xamul dara nangam la day jaay torog nangam nangam lu ne ñuy wax ma ci moom saaga saaga ko doon xasal bàyyi <laughs> maa ngi fàttali noonu la mel boo ko xamagut mën nañ laa wax ba nga jëpp ñi ñi nga xam ne nii ñoom la ko yàlla may ñu ko ñu ko yàlla may ñu sell sax ñaare yenn wax yu bëri détails yu bëri duñ ci dugg mais boo ko mosee rek du naan est-ce que ndaw set sell loolu la mel malheureusement am na ñu koy saboote ci seen wax yu bon yu tekku dara jotewut ak dara yàlla <coughs> waaye kuy nëbbu nooneel du ko xam mooy naa fekk nekk bëgg nga lislaam fekk bëggoo ko doo ko xam ku jaxasee jéng wala ci yoonu njub jafeel mbir yi lool lu ñëw nga ne bidaa la doo am maarifatu bidaa hmm. waa béy maanaam ñoom noonu wuñ sax mais dañoo juum daal hmm. jéng wala ci yoonu yonent yaakaar na ñëng ca hmm. jafeel affaire bi nag def tashaddud nag tashaddud sikkiñ sax bu guddee ñu ne safara nga jëm <coughs> boo ko gàttalee kon boo wattee si sikkiñ sax wala nga kii ko ñu ne safara la waaw wahaabi moo mel noonu kooku du mën a am maarifatu billaahi de ndax diine yusrun moom na mutashaddid la yusrun ak tashaddud moo ñu ànte sufiyaan ci mos ñoo teg seen tànk fi ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi teg mosul am rek fa teg woon mosuñ koo teg ni nit ñi taalifee tabaxee école nii di wuti diplôme nii te loolu mosul xam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sàkk xam-xam jaamu yàlla hmm. ñoom it noonu lañ góorgóorloo rek ba teg ñu si yoon woo xam ni danañ mën a xam seen borom rek hmm. ni masaay bi amee rek noonu turuqi amee lenn la way la zikruñ tur gu ñëw ci alquran hmm. kurs gi ñu yore nii dafay mel ni lu bees boo déggee gaa yi coow fekk kuus gi si jamono saxaaba yi sàmmoon na hmm. abu muslim alxawalaan yi taabii la hmm. waaye jébbalu na si jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa rajewut ak yonent bi hmm. <coughs> ibnu kasir andi na ko ci bidaaya wa nihaaya tee na kurus moom abu muslim di wér ba kurus gay sàbbaal ca loxoom moo umu muslim soxna si kaay xool soxna si ñëw dégg kurus gi sàbbaal ci loxo moom sax moom daf daf doon nelaw laa bëgg wax ku wirdi wirdi wirdi ba nelaw kurus gi continue di ko di ko wuutu ko di sàbbaal ci loxo jël nañ ko sànni ko safara safara si lakk ko moom abu muslim al xawalaani wala yàlla de ñoom nag gaa yi gaa yi a yi dañ naan njabar la nag ñoom ñoom diine diine diine lañ jël xam nga <coughs> maa yati min rasulin maa yati min ayatin min rasulin loolu nag du alquran mm. yonentu woon aaya illa qaalu saahirun aw majnun lu ma ne njabar la wala dof la ah, yàlla ne atawaasaw bii waa xanaa baat boobu lañ ko dénkante mm. moo fi ba léegi wér da bay nelaw mm-hmm. nañ ko sànni ko safara safara si lakkut mu dem Medina Omar ne maa ngi sant yàlla mi ma may ma gis kenn ci xeet yonent bi bi yàlla may karaama gu tolloo moo gis a gëm yàlla Ibrahima kon eh, kon moom kon Omar moom xam na ne affaire bi karaama la kii wëlli la <coughs> kooku téye na course ku dafa réer ci nekk am na ku ko inkaar gars dañoo bari bëri dañu de booy mm-hmm. laa wëlli yàlla yi nekkuñ ci lu moy ci njub mm-hmm. ak jaamu seen borom <coughs> te nag mbir mi leer na de alolama warasatu anbiya lu lu la yonentu wax yonent yi dañoo amoon ay kaw ay mojisaat de wëlli yàlla feeñal ci ñoom karaama xam nañ leen wëlli yàlla feeñal ci ñoom karaama xam nañ leen de xam nañ fi ñu féetee de li des nag mooy nga nga timaal leen saa seexaru te xamoo nuñ ko seexaroo moog tumaal yonent yi seexaru te xamoo nuñ ko seexaroo benn la <coughs> waaye wëlli xam nañ leen de ñaareel borom ci sikkuñ yu gudd yi xeeb ma sikkuñ bu gudd sax ah sikkuñ bu gudd ne mën na koo yor. ñaareel benn karaam du feeñ ci ñoom de. est que yaa ngi seetlu ma la bëgg wax. Mm-hmm. yàlla jàngal na de. Mm-hmm. kay jàngal na ñoom ñoo doon yonent kooku du xam yàlla. waaye ku gumba xolam gumba. Mm-hmm. mu réer lool. du xam yàlla xam yàlla balaa nga def rek foog nga am maarifatu billaahi boo amee maarifatu billaahi sa xol mooy gis. waaye borom xol bu lëndëm na jàng ba bëgg dee du xam yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomu aadama dafa am zaahir ak baatin leer yonent bi bu tëjalee sa baatin xam-xamu zaahir rek nga yore bu tëjalee sa zaahir xamu zaahir nga yore da nga xam mbiru bitti lu bëree bëri bëri masala mu ne mën nga koo régler waaye sa bi du dëddu àdduna du ragal yàlla du jub parce que yow tëjali gi sa zaahir la feeñ mais buñ tëjalee sa baatin sa xolay xam yàlla sa ruuxoy xam yàlla da ngay dëddu àdduna bëgg yàlla àdduna li ci biiram du toll ni yow misqa du toll ni yow ni mbaggab yow xam nga waaye koo xam ne xol bu dafa gumba te ji léegi yëgul ci baatinam ci bitteem la yem kooku mu réeree yàlla kooku du xam yàlla mu <coughs> ba pare moom xamul layoo ba pare royut ñi xam layoo yàlla mu ci bool na jàpp ne xam na layoo xamul yoonu njub royut ñi xam yoonu njub kooku du xam yàlla ba mukk in uridu al islam wastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh